ألم يجدك يتيما فآوى السلام عليكم تلسبيكتاتر بو باول ميجا بوكي مومن رك نيغي ديل سوات سين جوتاي بيغا خامني مودي جوتايو وادوها بلا نيو ديف لين رك مبوكي نيغي لين ني زيار بو باخ باخ باخ تي جامونو جي نيك ساسوني تاميت اند بيغي ني اندك بروغرام بروغرام باول ميجا مبوكي ميلني نك تاي نيغي ديلالات في خامني كي ديوانو نجارم تي جوربل فيك سي فوات سي جيم جو باخ جي di alhaji Modou Cissé diko ñaanal yàlla xamni tamit lu ci bare bare tamit dina nek ci diwaanu Ndakaaru en face lycée Mame Limamou Laye waye tay ñu fekk ci ko fi tay ci cosaanam tabarkàlla diko santat bu baax baax bala ñu def dara dañ koy daal di jox kàddu bi mu leen tek ci spectateur yi alhaji Modou Cissé assalamu alaykum أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 yàgg na nooy def émission waaye bu nu mës def rek bi bokk na si yi nu si dàqal ndax macha allah yàlla def nu nekk sunu dëkkuwaay di génn di jàkkaarloog sunu dëkkuwaay wayjur loolu lu nu neex la ñu ngi sant yàlla si loolu lu bëri bëri di wax waa Bawal Media dal leen ak jàmm tabarakallah si yi nga xam ne noo ko bokk muy diwaanu Bawal comme ni ma ko waxee woon sëñ Diop rek nekk lu Bawal Bawal di yëngatu sunu su jiituwul tamit war nañ see bokk tabarakalaa loolu mooy waral sunu liggéeyandoo ak waa Bawal Média di ñaan yàlla yokk ko barkeel ñaan yàlla yokk sa barab ba xéewal yàlla yokk dëgëral tamit ñi koy sos ak ñi fa yëngatu ñëpp ba lépp luy seen mébét si mbiru média fa tabarakallah yàlla kàtt na leen ban man koy matal di lay santaat bu baax di lay gërëm te di lay ñaanal Mahamadul Amin alhamdulilah El Hadji ma Modou Cissé mu mel ni nuyu kaddu yu sell yu tedd li fii ci diwaanu Diourbel di Njaareem diwaanu Bawol mu mel nii rek dañuy njëkkee ci tey di wax léeg-léeg ñu ne la weeru shahru ramadan al mubarak ak weeru muy weer bu sell waaye weer bu sell ak sarax mu mel ni sarax dooleem tam bëgg nañ ko xam ginnaaw bu ñu la bàyyee tamit ngay jëlaat kàddu foofu alhamdulilah mahamadul amin macha allah am na solo ndax weer la boo xam ne eeru solidarité la eh, commencé si borom bi moonu ko njëkk a defal muy solidarité si ñun jaamam yi muy weer bu bëri bonis macha allah ba looloy tax su ñëwee ku yàlla may sansu nga fekke ko mm-hmm. war nga see occasion wu ba macha allah yokk si lool lool sa yiw ndax gan la goo xam ne fukki weer ak ñaar yu nekk benn yoon lay ñëw mm-hmm. te macha allah dafa indaale service yu duun muy maxfira muy raxma mooy xetxun mi na naar ñett yooyu yëpp nag macha allah ku am gan goo xam ne indil na la yooyu si cëri service am fa tabarak laa gan goo war a màggal la gan goo war a fonk la waaye gan goo war a góor góorlu lool lool macha allah <coughs> si mbégte ba nga xam ne bi macha allah suy génn laxalakum tataxoon boobu nga xam ne mooy résultat te euh, dañ ne koor ko def rek mu mel ni ak exement booy def soo dee at me nga nag ragal yàlla moom la lay bàyyee ñu ñaan ñun jaam yëpp macha allah yàlla defal na ko alhamdulilah. jërëjëf. El Hadji euh, Modou Cissé mu mel nii bu ñu nee weeru shahru ramadan al mubarak. Hmm. Euh, ñu ñëwaat tey ci wàllu sarax. Hmm. weeru koor ak doomu aadama bi sarax. mu mel ni dooleem dafa mel nii. Hmm. ci weeru shahru ramadan dafa mel nii dooleem war naa mën a yokk de suma yaakaar. wallaay lu wér a wér ndax sarax. nanu koy waxee e, day dindi lu bëree bëri si doomu aadama lu tax mooy ka nga koy jox jaamu borom bi la te yàgg naa di wax boo bëggee doon xaritu njaboot mhm. xaritoo la njabootam boo bëggee doon xaritu yaay la njabootam te jaam yëpp macha allah njabootu borom bi la mooy tax loo si def rek te yéena ba e, sell mhm. yàlla def la si defal promotion macha allah muy lu ñuy sant nag ndax ki nga xam ne bii mos na bañ a lekk te mu am lu mu joxe xelam war nay dem si ne kon ñi koy dëkkee xaw nay mett si ñoom mooy tax lépp lu ñu doon def si solidarité fa laa war na di ko yokk su masee koor mm-hmm. donte woo toujours la war nag waaye boo masee xiif mos mar mm-hmm. war a xam ne ki nga xam ne yàlla nattoo na ko mënula ñi ñetti dépense yu dajee wala ñetti fa tabarak yàlla nattoo na ko am na ay arriéré de location mhm. yàlla nattoo na ko am na tawat boo xam ne mu ut ordonnance jafe na ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu lépp dinaa di wax ne baraana lu nit mën a naafila te du doon ay ràkka mooy yokk yërmande lool si jàmm yàlla yi dinaa koy wax ne am na si yenn xéwal yoo xam ne jaam yoo ko bettee fa tabarak laa yiw ba nga sey am mën nay ëpp fu fa tabarak laa soo doon naafila kon ñi yàlla may wërsëg. nan di bëri ay rakka si solidarité. te mooy bañ ji mosal nit nag di ko jox loo xam ne dina ko jariñ su ñu ko man xam nga ki nga xam ne fi tubaarakalaa la mu yor biir na ko ne mën na am sutura ba ba mu fiy bàyyi ko ba bàyyil njabootam lu ñuy suturlaaw allah kooku ku muy di bettee ñoo xam ne bii xéewal mm-hmm. ñoo xam ne am na fu nu toll loolu dinay am solo lool lool lool lool dañuy yokk ñaan yàlla nag yàlla yokk nu yàlla yokk noo kattanal ñun waaye nu ngi si wasulaax suñu kem kattan si fii nu dëkk muy njaareel mooy waral chaque di bi ramadan bu nekk fi laay ñëw muy fa la nu nekk di ndakaaru fa tabarakallah muy fa nga xam ne bii fa la jàngee alxuraan barab yooyu yëpp dinañ di faral si jamonoy koor nu fay def ay solidarité def ko te yàlla rekk tax nag sant si yàlla di ñaan yàlla muy dem bay doon xéewal yoo xam ne fooguñu ko woon ndax dinaa di wax ne bokk na si li nu gën a neex. Mm-hmm. muy joxe. sunu ko mënee fi tabarakalla loolu bokk na si li nu gën a neex kon daal nuy ñaax sunu bopp ñaax jullit yëpp nu gën a am yërmande si jàmm yàlla yi fi tabarakalla. macha allah mm-hmm. El Hadj Modou Cissé mu mel ni tamit ñu ngi dugg ba léegi rek mu nekk tamit uh, fi ma jëm muy jàmm yàlla bu mag a mag muy diggante ñaari way dencante gis nañu jamono dafa mel ni mbir yi daal. li ngi gën a dox ci jamono ne li ñuy gën a seetlu yaa ngi jaxasoo mu ngi am jafe-jafe El Hadj Modou euh, lu waral leen ni mel ndax dañoo xoolul say au départ balaa ñu ciy dugg wa ilaa tam lan lan moo ne ci biir ah, alhamdulilah Mahamadul Amin dinaa di wax ne nit bu bàyyi ñëpp tànn la muy ku góor ki dafa bàyyi soxna yëpp tànn mareem ne mhm. moom laa bëgg mareem bàyyi ñëpp nangul ko ko loolu kon cosaan la mahaba ak mawada la te mooy bëgganteeg soppante lu tax nag suñu demee ñaare ay semaine wala suñu demee ay weer mawad ak rahma boobu day doon alxadaawa wal baxda te mooy jéppanteeg móolante loolu fa tabarakallah jar na seetaat mu mel ni ki macha allah néew na lool nga dugg si kër këru famille te doo fa fekk ñoo xam ne doon doon wax sëyoon nan donte wala ni wax nag say bakkan la am waaye tas ci sa tasin bi dafa bëri léegi Mouhamadou Amine lool lool lool lool lool da ngay dégg yenn san yi rek mu ne nangami junniy sëy si tribunal mhm. te mu bëri lool yoo xam ne dafay fay àgg kon loolu nu war a seetaat mhm. toogaay yi fekkee ne bi macha allah ñiy sàkku muy soxna yi dañuy laaj lu kenn mënul nu xaw koy wàññi xam ne sëy jaamu yàlla la nii nu nekk ni si woor sañu na lekk sañu noo naan sañu noo def lépp lu yàlla gërëmul noonu la say doone da ndax yàlla lu mu santaane rek am nay sàrt soo ko defee danga nga siy am yiw waaye soo ko bàyyee danga nga am mbugalam mhm. fa tabarak laa bu dee sëriñ yi tamit nu nuy bañ di gànt loo xam ne mat nan te yàgg lu may yàgg di wax rek mooy soxna doole bëriwul bu nu bàyyee ñëpp dénk la ko fa tabarak laa war nga jiital yërmande si moom mhm. su yërmande amee yàlla mën nay def bu dee ku nite te ku yàlla nar a dimbale la déggoo dina am su déggoo amee yàlla mën na leen a dàqal seytaane mais lu si bëree bëri fi tabarakalaa li na wax émancipation bu dee noonu lañ koy wax loolu dinaa di wax ne mën na na doon gaaf si sëy ah, te mooy macha allah du ma yilif lu ma neex laay def ah, eh, du ma sa jaam nan koy waxee rek ne jëkkër sang la fi tabarakalaa eh, solo nam si xadis bi sallallahu alayhi la wax yépp ne bu ko soxna defee am aljana bokk na si mu déggal kilifaam te muy mu déggal sëriñam fa tabarakallah muy ñaan sëy yépp jub fa tabarakallah eh, ànd yàlla gën a dëgëral ànd yi baraan na lu koy waral it Mahamadul Amin liggéeyu sayaatin la mm-hmm. ndax eh, kenn du weddi ne daddaal li am na soo demee si suratul baqara da nga ko fa fekk fa tabarakallah muy loo xam ne bii lu am la te du fi jóg tey li ñuy wax lépp yàlla la mm-hmm. waaye yàlla mi doon jayee saytaane démb ba mu jay ba mu jay sunu maam xawaa ba mu lekk garab ga mhm. ba ilaa yom yub xasu na du bàyyi setu aadama ak xawaa yi mooy tax yu si bëree bëri sayaatin mën na doon saytaane làmmiñ mhm. comme moo tax communication la am solo la mën na doon saytaane dëddale la ma wax mhm. dinaa di koy yàgg naa di koy wax si ne képp koo xam ne bii yaa ngi yaakaar aljana nit ñëw si yow ne ànd diw ak diw laa bëgg nu tàggoo nga jéem sa bu sotteeg bu sottul yépp fa tabarakallah jëratul ngay julli ndax sëy dafa barkeel Mahamadul Amin wallaahi fa tabarakallah doon mu doon lu yàlla fonk it macha allah mooy tax yenn saa yi nit day ñëw sax di may wax sama digganteeg sama soxna laa bëgg nga seetal ma ma ne ko paase na ndax bu ma seetee rek bàkkaar ñaaray mën a am mën na la baax na loolu alhamdulilah waaye su safaan amee su baaxul ma ne la baax na fa la fen na su ma ne la baaxul nga def ko si sa xel te xel day feebar ah, tooñña mooy tax yu si bëri bëri nañuy wax it ñaare war a ànd day am mhm. muy luy ëpp di xeet bi macha allah ndax doomu aadama luy nëbbatu si moom dafa bëri doomu aadama yi dafa am baatin am ay tabiha mhm. yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan def boo waree ba boo demee ba war a toll si ut soxna nu defal la istixaara seetal sa digganteeg diw bu mu wóor la ne sëy buy jub la sëy bi am njaboot la sëy bi am xéewal la mm-hmm. lu doog la yebal na la demal seet sa mbokk diw léegi nag danoon na si jamono jox xam ne macha allah euh, euh, ñu si bari macha allah nooy tànn seen bopp si réseaux sociaux yi ah, wala si collège ba wala si euh, dancing ba fatabarak la loolooy waral it ànd yu barkeel yi di gën di tumuranke waaye boo gisee suñu jamono yi bàyyi yeeg maam yi macha allah mhm. loolu gënoon nay tumuranke waaye daan nañ di ñàkk sëy naa koy wax lu bëree bëri bëri ku si am soxna soxna alal la jëm koy ñàkk mhm. ndax danoo si jamono joo xam ne jigéen dan naan ñaari loxoy takk tubéy mhm. ñaari loxoy fësër mooy tax néew na nga yore soxna te bëggula liggéey te xëy jigéen comme sa kër lañ ko xamee woon boo xëyee di uti saay saay mën na am koo xam ne saay-saay mën na ko xelam na sa xelam moo ma sa nekk mën na koy jaral lu nekk loolu lu jara bàyyi xel dinaa koy ñaax lu bari bari borom kër yi si nekk si yor soxna jëm mm-hmm. koy ñàkk te dañ ne jigéen du tëx day raw fa tabarakalaa ñàkk ba nga xam ne seytaane du man si moom day raw fa tabarakalaa du ko yàqal fépp fu mu demee sa xel dal nga xam ne jiitu nga si te mm-hmm. loolu mu ngi fi dinaa koy wax loolu mu ngi fi macha allah def ñaan ba nga xam ne sa soxna lu lenn du ko jariñoo mhm. fa tabarakalaa mu ngi fi ndax bu dee newul sa xelam sax seytaane na may wax rek mën na tax nit jóg sama ba man ko loolay tax fa tabarakalaa loolu ñu bàyyi ko xel même ba si njagamaar yi muy gune ku sam jaboot muy jigéen mhm. yàlla baaxee na nu secret yoo xam ne bi boo ko defalee si kàttanu yàlla lenn du ko mën a yàq dana téye ak ndawam fa yooyu lu am la te lépp c'est am na si secret si alxuraanul karim mahamadul amin mais ñëpp daan naa di wax ne nan di góor góor lu si xam chiffre mhm. doomu aadama xam chiffre am mu ngi mel ni kii ni moo xam numéro téléphone am mu mel ni sama numéro boo ma si wooyee àddina bi yëpp boo si wootee sama bos rek mooy sone si àddina bi yëpp noonu la nit ku nekk di amee chiffre fa tabarak laa dinaa koy wax ku si am sëriñ mhm. walla nga am soxna bëgg seen mbëggeel di yokk mhm. fa tabarak laa jéem a la xam chiffre am ak sa chiffre mhm. nga di koy def si allahu jaamihu waddud mhm. allahu jaamihu waddud mooy yàlla moo muy boole ci ak cofeel fa tabarak laa loolu may naa ko àddina bi yëpp fa tabarak laa képp ku si nekk nit te bëgg toujours rek seen ak ceet du rab ni ko benn kat wax wax kat waxee ne bu ne la ana si seetu daaw ba nga ne seet tët tët. kon yaa quelque chose <laughs> sa kéet warul di ruus fa tabaraka la wallaay si wallaay wallaay. <laughs> ma ne ko ànd moom toujours rek dañuy war di gën a bëggante di gën a soppante fa tabaraka eh, gën a ñu ngi koy ñaanal sa yëpp fa tabaraka yàlla gën a dàq saytaan it. amiin amiin ku si yor loo bëgg daal yëm sa jiitu. Mhm. ba nga xam ne seytaane du sa man du sa mën a àgg alhamdulilah. Mhm. ma Modou Cissé mu mel ni am na solo fi ñuy daanale rek daanaka waxtu baa ngi jege wërsëg. Mm-hmm. wërsëg doomu aadama bi dafa ànd ak doomu aadama. ci mm-hmm. jamono. Mm-hmm. kay dem bàyyi njaboot wa sax mu bàyyi njaboot ga dem fu sori. di sàkku ji ngir am lu mu indi ci kër gi. dimbali njaboot gi dimbali ñi nga xam ne ñoo wékk ci moom. wàllu wërsëg ki nga xam ne tey moo ngi koy sàkku. wallaay wallaay alhamdulilah Mouhamadul Amin eh, dinañ di wax ne lu agsi rek yàlla bindoon nag ko. waaw. mais li ñu wax ne macha allah robinet bi lay indoon ndox soo fattoon bu teewoo ba fattoon. ndox ba du agsi mooy tax yenn saa yi la ñuy wax tëju blocage day faral di am. lii nii ñuy waxee ni macha allah ay chiffres la su boole ko woon la ñuy wax du àgg. si technicien sëñ Diop. tey fa tabarakalaa du ko mën a tas si àddina bi yëpp. loolu nag la blocage amee si taxawaayu nit. nga xam ne bi macha allah lii kat waroon na yomb lool. te su ko defee macha allah du buntu du am. Mhm. fa tabarakalaa wala nga xam ne bi nit yéene na la te mu bir la yéene la li mu la yéene mën na ko fa tabarakalaa mën na la jox rendez-vous. Mhm. jox la bés jox la heure. soo demee ba mu war a jóg pour dem sa moom mu woo la gàntal la wala soo demee ba togg moom mu gàntal la te da lay bir ne macha allah la mu waroon a def lépp waroon a jàppandi. yooyu yëpp ay blocage daf koy waral mhm. laa mhm. nga xam ne bi looy xëccoo booy def bu fekkee dix point la ni laaj xam-xamu nga am vingt point ma nga fa te soo defee du dem yooyu blocage dana koy waral laa waaye bokk na si li si gën a dimbali doomu aadama yàgg naa di koy wax mhm. ne nit nay eh, jéem toujours bu koy yàlla mayee sens muy dundandoo ay ay waajuram muy bañ di tàngal seen xol loolu danay gën a dimbali nit gannaaw bokk yàlla may way jur tamit te way jur dinañ di wax ne macha allah surtout yaay mhm. ndax dafa am solo fa tabarak la su loolu passé it yi mu am worma mhm. wormaal képp kuy jaamu yàlla loolu it am na solo <clears throat> muy saxoog uh, laab tamit mhm. baraana ñoo xam ne bii sobe dina leen di tëj Mouhamadul Amin <clears throat> am na si ñoo xam ne macha allah <clears throat> suñu fayee tuuti lu àndul ak ndigalu borom bi mhm. ñoom seen buggal dañ koy gis fi sàddina mooy tax dina si am ñooy xam ne loolu mën nay doon seen gàllankoor fi tabaraka la ma ne koy <clears throat> ñàkk di ñàkk saraxe mhm. ñaara mën nay boleke nit mooy tax képp ku nu <clears throat> nu baal si kàddu gi mhm. képp ku nu yàlla boole rek nanuy wax lañuy jéem a xam mooy jéem a xam sa code jël sa tur sa tur waajur sa date naissance yàlla baaxee na nu xam-xam yoo xam ne mën nañ lay jox tegtal fa tabarakalaa si looy def siy sarax lépp loo xam ne lu tëju woon la si yow. Mm-hmm. lépp lu bloqué woon la si yow dana débloqué wu Mahamadul Amin waaye fa tabarakalaa bu loolu jàllee mm-hmm. mu seet loo xam ne man mm-hmm. day koy laal si yaramam comme lu koy faxas si yaramam dinaa koy wax ne togg lu mu neex-neex dama ma sàmben yi baal su la nit tàllalee ndab loo xam ne dafa tilim kay togg daf koy wax duma si def sama ñam ndax lu tax dafa tilim ñaareet yaram bu tilim mhm. yaram mën nay tilim si cat mën na tilim si ay pas-pas te muy lu ëpp wedd yi dinaa koy wax lu bëri bëri ñàkkul comme dina si ñëwaat waaye macha allah ak njabar mën na um nit ba nga xam ne daraam du dox ndax Mouhamadul Amin ki nga xam ne waaj ña ba tàggatoo war a tukki fa tabarakalaa foog na dem ay AIBD rek. Eh, décollé moo si des. fa tabarakalaa saay saay sàcc dàllam dem si guyu séeréer daaj ko foofu. fa tabarakalaa mënatul a génn këram loolu yaa quelque chose. moo tax eh, baraana yoo xam ne dinay gàllankoor doomu aadama. mooy tax jaam te suur day war di ñaan. te su dee ko day yomb muy mu ak dundam mu si boole lii muy sangu sikkar suuru saraxe. fa tabarakalaa ñeenti siin yooyu dañ ne su ko dee def. juróomeel ba mën na ko yomb te mooy sañ sa mhm. tabarakallah yal na yàlla ubbi buntu xéewal yépp yàlla yokk si sutura surtout si borom kër yi surtout si ndaw ñi nga xam ne seen yitte yépp mooy paa bi mhm. ndeysaan da ngay toog ak nit danga koy yéene lool macha allah ndax yéenam yépp mooy paa baa ngay doon mag dafa tabarakallah amaguma bunt ma ko macha allah yéene bi sax si yàlla danay du jóg di lay defal yiw bu fekk ngay am looy jox paal bi soo ko amee di ko jox it yiw ba la doon bindal daf koy fëlandi kon xale yi nga xam ne yëpp macha allah def nañ seen i demande si ay société yal yàlla bette leen fay xéewal amiin amiin nu ne kii yaa saaxibi ma fi mulk wal malakut yàgg naa ko may ku koy man 313 yaa saaxibu ma fi mulk wal malakut nga di koy def 313 bu jant yi gën ak bu jant yi so si kattanu borom bi saaxibil mulk ma fi ma mulk wal malakut dana la bettee xéwal yu foggul loolu may nan ko ñëpp ku dugal sa dossier fenn it nga siy ut ak njàppandal jéemal a xam sa chiffre nga koy def fa saw fa mm-hmm. nga koy si nga koy mm-hmm. su dee nga xam sa chiffre jafe nga di koy def soixante-dix mm-hmm. soixante-dix dañ ne mooy tolloog kun sunu boroom nag fa tabarakala la mu nekkoon rek day yekkul loolu may nañ ko ñëpp tabarakala waxalal maliku ihtuni bi astaxlisu li nafsi mhm. wala maakalamuhu bi si suratul yusufa it fa moom it baax na ku ko man di bind nga boole ko fatihatul kitab aaya boo bind da nga bind aaya boobu waxalal malik fa nga koy jëfandikoo yàlla mën nay def foo def daman mhm. yàlla mën nay def fa tabarakalaa kilifa ga dana dana la woo tey fa la dëggal fa tabarakallah ñuy wax ne lii ëpp solo si lépp looy def rek Mouhamadul Amine pas pas danay dëggal si ne yàlla ne ñaan leen ma su ngeen ma ñaanee ma may leen lu tax yàlla bëgg ko ko ñaan ki wéet ne allahuma da koy wóor ne macha allah kamuy tàllale loxo ma ngi koy gis ma ngi koy dégg te la mu koy laaj am na ko mën na ko tawxit boobooy tax nag yàllay bëgg toujours jaam di koy ñaan mooy tax fa tabarakallah bokk na si ñe yàlla di mere mooy jaam ba nga xam ne am na rëy ak naan allahuma ngay gis fa tabaraka tabarakalaa ku tàllal say loxo naan allahuma bir na la ne nangul nga yàlla nguuram te nangul nga ko ne mu ngi lay dégg mu ngi lay gis te la nga koy laajit mën na ko am na ko te it fa tabarakalaa nañ koy waxee rek pas-pas bu dëgëree loo woo yàlla rek dala si wuyu suma borom Mahamadul Amin yàgg naay wax ne su ma dajewoon yow am na nu ma lay ñaanee doo ma nee nan mukk fa tabaraka tabarakalaa rawaati na borom bi nag kon pas-pas yi nay dëgër fa tabaraka la lépp dinaa di wax ne ku nu toogal rek loolu la ne njëkk a ñaanal yàlla bu yaakaar tas. amiin yal na yàlla barkel barkel jotaay bi. gëmloo ne la ne ki nga fi fekk si di ki man. Mhm. ñu ñëpp dañuy bokk suñuy pas-pas ñu tàllal ko kaman muy jàll jëlaale ko. su amee rek yaakaar man nay bañ di tas Mouhamadul Amin. macha allah. Mhm. jërëjëf eh, El Hadji Modou Cissé mu mel ni tabarkalla jotaay am na solo lool mu mel ni saa su ne yi di la ci bàyyi xel rawatina fii ci site bu am solo bi di Baol Média. لاي تاغوت تريسبكتاتير دي ناو دي نجو خات ديك داجي ناخ مو ملني فاو ني ويلا جوخاي ملني اسكان ني نكو ييتيو لول الحمد لله مانيكو سونو سانت يالا بو باخ نماكو واخ يوم سبتمبر لي ريك ناخ ما شاء الله بول ميديا نيو الحاج مودو سيسي يالا داف مي باول بول مو نيه كو لول في تبارك الله ناخ دسام يو خامني لو يالا لاكاي تان لوم لا سا تان نك دنج كوي غرم دغ tabarakalaa mënoon naa dogal si dogalam noo dëkkee feneen waaye fii lañu dëkkee muy njaareen tabarakalaa na ma ko waxee doon fi nu defee sunu lépp fa tabarakalaa mm-hmm. si yokk doolee santaat gërëmaat ñaanalaat sunuy waajur alxaaji àlla Cissé nu ngi jàkkaarloo ak këram ni ndeysaan yàlla beesal yërmandeem si saxu ramadaanal mubaarak sunu waajur bu jigéen it mu doon lu nu sante yàlla ndax dinaa di koy wax ne waajur lu am solo yàlla defé muy soxna so xamné dundam bari bëriwul woon lool ma sha allah. nax dundul won lu mat juróom fukki at. waaye fi tabarakalaa ni ma la waxon rek ne ngërëm gu ma amoon si kilifaam tax nak sama kilifa waxon ma fo yemele ci bop rek daf la neex. wallahi deug it nu ngi koy gis bu baax ma sha allah. alhamdullilah nax amul lenn lo xamné dinañ say danañ koy niseer wala nu def ko suñu bëgg-bëgg. te lu gis nañ ci si lu borom bi. kon loolu. war na na sant yàlla bu baax war na tànnale waajur yu tedd yooyu ñu ñaan yàlla si barki sax ramadaanal mubaarak yàlla beesal seen yërmande yàlla yërëm waajur yëpp it fi tabarakallah santaat bu baax it Serigne Diop di koy yokk ñaanal lu bëree bëri di ñaan yàlla gën a barkeel sunu ànd lu si jub nu sante ko yàlla jëla jëlaluhu lu si safaane nu ngi koy jéggalu loolu doonoon kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ko santaat beneen yoon El moo Modou Cissé mbokk yi mu mel ni seen jotaay Wadduha gis ngeen ko mu bari njariñ lool ni ma ko wax itam macha allah ci xam-xam gu rafet gi lee mbokk yi itam fii lañ ko fekk si wax ni ñu leen ko waxee fii ci diwaanu Njaareem ci Jurbel euh, bawol gi nga xam ne tamit ànd ak tey fi nga xamante ni muy waa bawol média gis ngeen euh, jotaay bu am solo bi lee ci diwaanu Géejawaay ngeen gis ko en face lycée Maam Limaamu Laay ca Ndakaaru moom itam yalla def itam mu fay taxaw di fa dimbalanteeg jaamu yàlla kon ñu diko santat bu baax di ñaan yalla bu subhanahu wa taala du lay guddal fanam do le ko defal tawfiq ak tayfi rek na najaaxa defal ko sahat daaray ni ci barke yonent bi mu yag lool di ak askan wi itam sa sa borom bi diko ci defal ndam ci barke yonent ñu ko fay ñaan bu baax a baax baax a baax mbokk mel numéro yi rek mo ngi non rek affiché yéen ñi yittewoo El Hadji euh, Modou Cissé rek numéro yaa ngi noonu affiché 77 617 70 44 77 617 70 44 wala beneen numéro bi 76 583 17 33 76 583 17 33 ci wàllu caméra bi ñu ci àndalaat sëriñ Modou Diop ak ci wàllu éclairage bi ak montage bi di ko santaat moom di ko ñaanal yàlla ak mbooleem personnel u Bawol Média ci wàllu présentation bi Mouhamadou Lamine Muntaxa la woon yàlla muy borom jàmm te it ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla saa borom bi doon la ñu defal jàmm dina assalaamu aleykum wa rahmatullahi الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك